fi xew ñëpp gis nañ ko je pense que am na ñi nga xam ne jot nañu gis ci Sénégal jot nañu gis ci presse bi ay écrit gars yi nee nañu ARMP dafa suspendre suñu restaurant mais loolu benn problème la mais li ñuy gën a soxal mooy euh, repreneur yi bu ma waxee repreneur mooy ñuy joxe lekk yi ci biir restaurant universitaire yi ñoom état bi da leen yoreel benn dette état bi da leen yoreel dette bi nga xam ne fayu leen ba léegi ak bor dette bi mu ngi toll ci benn milliard romb na ko sax parce que ñun loolu rek lañu yëg léegi ci loolu repreneur yi dañu joxe woon benn dat loolu la ñuy waxee date limite ci date limite boobu dañu neewoon woon le 20 c'est-à-dire lendemain gàmmu bu état bi fayul ñoom dañuy tëj restaurant yi bàyyi étudiants yi ba ñu lekk te loolu la ñu gis ñun dañoo joge gàmmu ñëw gis suñuy restaurant yi dafa tëj te ci tëj boobu noonu étudiants université Thiès yi xool nañ ba xool état bi daf ñoo xaw a négliger état bi teguñu fi mu teg yeneen étudiants yi te man xalaat nañu ñun ñun ñëpp dañoo am bac parce que étudiant université Dakar yi étudiant université bu saint bu Ndar ñoom bi ñu amee problème bi état bi da koo fay ñoom arrêté wuñ seen cour ñun commencé nañu depuis un mois weer a ngi nii commencé nañ jàng ci jàng boobu noonu tey ñu ñëw ñu bëgg a tëj suñu restaurant ñun étudiant université Thiès dañu nee ñun dañu nangu loolu ñun tey boo xoolee ci image yi di nga gis ay étudiants yi def examen di nga gis ay étudiants yi nga xam ñu ngi def cours di nga gis ay étudiants yi nga xam ne ñu jël bis bi pour ñibbi loolu day wane ne ñun étudiants université Thiès ñëwuñu fi pour xeex parce que dañ fi ñëw pour jàng état bi nag dëgg la pour l'instant euh, résoudre le problème bi mais ñun ñu ngi nii taxaw ànd ak suñuy camarades ne leen kaay la ñu taxaw xeex. Euh, problème bi rectorat ak CROUS ñoo ko war a régler parce que ki jiitee rectorat mooy recteur moom mooy présidente. Euh, conseil administration CROUS donc euh, je pense que ni ko rectorat la ak CROUS ñoo koy réglé léegi ñoom dañ ñoo bàyyi seetaan ñu li gën a ñaaw ñoom yëg nañ ko depuis deux semaines mhm. waxuñ ko benn président amical même les chefs de département kenn si ñoom yëgu ko directeur IFR yi kenn yëgul loolu day wane ni ñoom amuñu respect si ñun parce que nit boo leen di ànd di liggéey da koy respecté nga wax ko li xew à temps réel pour mu mën a jël ay dispositions. ñu ngi nii di jàng te xam nañu mënul nekk te étudiants chaque fois. ñuy jàng tey lekk amul naan amul tey mënul nekk léegi ñun dañuy lancer appel dañuy ñaan ñu nekk ci gouvernement bi ñi nga xam ne ñu ngi fi nekkoon ci gouvernement bi guide religieux yi bonne volonté yi nekk ci Sénégal ñuy def mbaax dañ leen di ñaan ñu jàppale ñu parce que ñun sonn nañu sonn nañu nag exclure duñ def leneen instant bi dañuy ñaan mais su kanamee dinañ xool leneen aussi li ñu def principal responsable bi directeur Crous la ñun directeur Crous la ñuy wax parce que Bambey ils ont le même problème ñoom Euh, repreneur yi fayuñu leen Ziguinchor fayuñu seen repreneur te ñun ñëpp la ñu installé ndoo ñun ak Bambey la ñu installé ndoo te pourtant déggoo problème c'est-à-dire y une mauvaise gestion du directeur du CROUS moom géré wul ba nu mu baaxee am na ñi nga xam ne dañu jóge Matam ñi jóge Kédougou Casamance amuñ fi mbokk tey boo xoolee campus ñoom ñëpp ñu ngi fi te li gën a garaaw dafa tëj restaurant bi tëj suñu service médical service médical bi mun ngeen xool ko dafa tëju lu ñu lekk amul lu ñu fajoo ñeen ñëpp gis ngeen ni bourse fayaguñ ko tey nous le 21 waaw euh, bourse lépp état bi la mais dama su ma la nee fay ñu bourse tey bu ñu amoon suñu bourse yi dinañu mën a tenir bourse yi dinañu jàppale ñu mën a régler situation en attendant état bi di ko régler mais amuñu dara boo xoolee ñun ñëpp suñu poos yi amuñu dara donc munuñ dañoo bëgg a jàng nag nañ ñu jàppale. ñëpp lañ ci woo xeebuñu kenn képp ki nga xam ne mun nañu jàppale rek ñu ngi koy woo surtout état bi nag parce que état moo ñu fi andi ñun dañoo am bac comme gars yële dañuy jàng. université Thiès c'est une université d'excellence. à chaque fois ñun dañ ñuy citer en exemple donc nañ ñu respecté du question daal ñun duñu génn ci biti rek dañoo pacifique trop de bu ñu sësee dañuy génn loolu nay leer bu ñu sësee dañuy génn te instant bi ñu ngi ñaan état bi mu régler ko dans les plus brefs délais bu ko réglé wul dinañ ñu dégg te bëgguñ ci àgg nag.